Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV waaye ñaari xale yi ñu ngi lëkkaloo mbokk yi Garga 2 sunu ndeyjoor Tyson ci bàyyi ko dóor ci ginnaaw sos te léegi lambaat na xaalis léegi ñoom ñaar jàppante nañu Garga 2 Tyson na nombo Tyson ñoom ñaar ci suuf. Tyson 2 war na ko noonu ma yenn na ko ba ci kaw dóor Garga 2 def na trois appui ñoom Garga 2 bëgg na cee génn waaye Tyson 2 da ngaa dëgg daanaan tey. 19 heures 10 minutes 25 décembre au stade Iba Mar Diop Jackson Wrestling uh, Production le gala des espoirs Thiatou moo nekk suñu ndeyjoor moo sut Franc bu Parcelles mbooloo moo nekk suñu càmmooñ ngemboo ngembul weex moo gën a gàtt waa caat waa Yoff yëpp ànd ak mooy eh, Franc dem na Franc dem na jëli ko day mbapat moom dóor bi la bañ waaw combat rapproché moo ko gën a eh, eh, eh. Franc caatu njaago yi mi ngi jàkkaarloog ak caat caat kii mbapat kat la de caat rëpp na Franc war na ko daan na ewaay ewaay oh! Néckorel Tyson 2 Néckorel dóor na ñoom ñaar daje nañu Néckorel la ngi dóor Tyson 2 ñoom ñaar ñi ngi daje <laughs> bu la jëlee Néckorel Tyson 2 Néckorel la ngi koy tël waaye <laughs> génn nañ ci biti ay Tyson 2 dóor na moog Néckorel jàppante nañ Tyson 2 daan na Néckorel oh na waay Tyson 2 jàpp na Néckorel yi yëkkati daar dóor ci suuf doomu ndaayaan bi Franc parcelle moo la moo nekk suñu càmmoñ Jara mi ngi dox ci kawam Franc bu parcelle Franc daw na jëli ko amaat na tànk Franc amaat na tànk Jara deux attention ñoom ñaar rëpp wër na ko ndomba Jara am nga problème Jara am nga problème Jara am nga problème mi ngi koy dóor Franc mi ngi koy dóor ñetti appui quatre appui oh daan na Jara doo fàq ko ndeysaan waa foofu da koo kor mu rocc loxo ba mu door koy perkil mu fàq ko Franc Nguer ah doorante nañu day jël na tànk li wëlbati na ko wël ko nomba buddi ko daan ko la ilaha doole doxul jàmm. doole doxul jàmm. Eh, doole <laughs> doole xeeñ. ah kii. kii boo ko jëm doole ci réew mi. nga ne bitim réew. bitim réew. moo ëpp ñëpp doole. ay bi. waa parcelle dañ maa yónni yàqamti ma. doomu parcelle la. Tay Shinga doomu Darou école de lutte Songane Gueye. ndeysaan too Max Mbargane ñoom Tyson 2 moo yor ngemb lu bëla li doomu dàngu moo yor ngemb lu weex. Tyson 2 déclenché na Bakar Tyson 2 gi xeex. gi xeex déclenché na Bakar. doomu dàngu Tyson 2 Tyson 2 daan na ko. non mu xalaat. da ko ah, xeex ak moom Bébé Saloum day xeex ak Franc jàpp na ko. jàpp na ko lamb ji jeex na wala kot daan ko doole doole baajo bi doole baajo bi Franc ku koy arrêté oh kii arrêté na Franc. Tyson 2 Gora Sock Gora Gora Sock Tyson 2 attention Tyson 2 ngir Gora Sock a ngir est-ce que diisul est-ce que diisul ñaata appui 3 appui 4 appui. Gora Sock Tyson 2 Gora Sock dama war ne luur la daw nañu jël Gora Sock day rëpp rëppati na. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur la pouce bleue pour liker.